ñu commencé naan la stratégie ne pas la bonne stratégie il doit pas parler nangam nangam doxul mu yónni nag ay journalistes léegi yu mag ñu dem ci plateau yi ce que Bougane veut faire ne pas la bonne stratégie nangam ak nangam ma ne leen du dox fan la mujjee mooy si l'opinion récemment guddi gi mu bëggee def live am Bougane di kërti kërteeg moom waaye borom xolu xeer moo moo naqaree xeexal. boo ko gañee lendemain bi mu utiliser ay armes ñii bi ñu nekkee ci opposition yi lañ yoroon ay armes di xeex non conventionnel di saaga di dóor di koj ils avaient les de leur combat. mais mais mais, ci opposition bi lañ ko commencé mais également ñu ngi koy continuer bi ñu nekkee ci pouvoir bi parce que tey li xew Tamba gis nañ ko bi bi bi Barthélemy di wax nga gis leen ñu ngi indi seen ay tëgg euh, di di di di yuuxu pour euh, perturber ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon foofu provocation boobu aussi aussi euh, nemmeeku nañ ko tey foofu ci tribunal bi. mooy am part ci cinq ans yëpp au Lomopas 56. la ñu créé mindset la dictature patriotique mooy am ku àndul ak ñoom noonu lañ lay def élection yi ñu jëm parce que keroog lavage de cerveau la doon def sur les quinze mille places man dama ko xeeb Ousmane dafoo doon jël bu Ablaye Wade. soixante mille places. eh mën na ko ils ont ils étaient les opposants les plus riches du Sénégal. les cagnottes là c'était pour masquer pour que les les faibles esprits naan ñoom lu ñu génnee rek non ñoo ko cotiser voilà mu ngi nii euh, dañ doon euh, provoqué bu day waar ba ñu mujjee gis naa ne euh, gars yi dañ leen mujjee ah, dàq ci la ñu dawee donc mu mais mais keroog dama wax ne la Médina yow li ngay wax nii nu on l'a vécu en direct Médina on l'a vécu en direct Médina ñu ngi yaa ngi taxaw waxuma waxuma ñetti jeeg yi waxuma jeeg yooyu parce que ñooñu wéruñu parce que ci guddi gi lu ñu envoyé Medina la ñu jël dajale jeunes yëpp. ñu fekk ñu fa keroog les forces de lor ni ñu def nii lañ def bi ñu ñëwee ñu cité ñu nii nommément cité ñu nii nommément na ci lañ dóoree ku ñaaw ko daal ne bu ñaaw bi ne la ne la ne ne diw diw yéen nangam nangam taxaw policiers yi ci boppam les policiers et les ñoom ñoo leen leen dégagé yóbbu leen leen fële gis nga nii lañ koy campagne gis nga ñi am liste su dee élection dina am ñi am liste ñi am liste di campagne fu ngeen dem gis nga bi Ousmane Sonko di dugg ci arena bi ñaata guri sécurité directeur port moo yoroon sécurité Ousmane Sonko match football def na ñetti équipe ci benn stade mais li doon am mois de mars le 21 mars de 2021 lan moo amoon ci mbedd bi yan façon violence ngeen doon gis yan xeeti agression ngeen doon gis yan dóor ngeen doon gis lan ngeen doon gis mais ces mêmes personnes son toujours là. Mm-hmm. keroog li xew arena tour bi c'était Bougane yàq na sama kii ci opinion bi maintenant live yeeg kii ñëw na ñëw leen ngeen taal lamp yi li nga xam ne Ouzin Keita sax mën na ko pour l'instant nii ñëw leen ma jouer film ma théâtre mais ku mënul it kuy dem bay utiliser ay maire yu am ay trois kii ci ay science de film nga xam ni c'est un parti c'est un Podemos au Sénégal nous vivons ce parti au Sénégal lan laay wax leader yi kii gat sa gat sa la xam il a l'esprit de gatsa gatsa il n'est pas là pour des idées xam-xam waxee wuñu xam-xam doxee wuñu xam-xam. mais Abou Sénégal ku ko bëgg doo ko taal. waaw mais moom laa la wax ne la. Sénégal léegi moo tax ma ne la boo doo fi wàññi. mais mais quand kan moo taxawul de la sa première déclaration mu ne arrêtez d'utiliser les misères des Sénégalais di ko hmm. campagner. waaw mais c'est la lu misère Covid Sénégalais ñu tëj leen si la utiliser l'affaire Adji Sarr man su doon maa jotee ak Adji dama koy woo ba ci kër ma yedd ko ndax rakk la wala jigéen la wala doom la. foofu ngeen di nattee yërmande nit bu la maasee sax ba pare te dara xewul ci yow te mu doon la maasee ba sa ndigg wér même bu dee ni sax dañ koo jaar ci loxoom tuumal sa yërmande war na laa may nga récupérer ko mais kooku moo ne xale bu jigéen buy mel ni dangin bu AVC utiliser AVC utiliser dangin mais kooku mooy l'homme il faut l'écouter quand il parle Ousmane il programme même son suurir son sourire même n'est pas naturel. Seetlu leen l'homme quand il parle regardez son visage quand il parle regardez les gens qui l'aiment regardez les gens qui dool xool leen leen duñu kontaan nuñu c'est un conglomérat de mécontents ñaar yi moo am mooy gat sa gat sa ci kër yi ci mbedd yi ci bureau yi ci kaar yi ci koñ yi ci lépp lii moo koy régler parce que lui il recule li yokk ci moom mooy il a maintenant les institutions de la République et bu leen fàtte bu ñu jëlee capitaine Touré ñu yóbbu ko def ko xawma gendarme jël ko yóbbu ko nommé ko ASP mais il a donné le ton mooy képp ko xam ne yaa ngi ci biir fële te àndoowoon ak man ñi àndoon ak man dans les entreprises yi entre armée yeeg yooyu dama leen indi fii Tamba c'est une bonne occasion bi muy sanctionner les juges yi Khadim Bamba Diagne waxoon fan la leen sànni du Tamba buggaan am occasion dugg Tamba mais dafay wax régler leen Mali exécuter leen Mali rapidement parce que moom il Tamba comme zone de sanction gëmul Tamba gëmul bakken et et l'affaire de Bougane dafa am ñaari affaire yu ci yu ci feeñ mooy le prétexte bi mu taxawee wax ni damay dem Bakel sóoruñu ko woon ni day dem Bakel on pensait que le vendredi bi ñu defee live ba pare bu ñu defee vendredi leneen la ñuy def beneen façon type tànk la ñuy def bii bi ñu annoncé ne dañuy dem Bakel Ousmane Sonko devrait communiquer la semaine il devrait prendre la communication sur la semaine mooy bu defee film boobu quinze mille personnes pour wan sénégalais napp sénégalais yi que nit ñi gis ni quinze mille personnes Touba danoo dox nit ñi ñëpp moom la àndal mais loolu day werante cinquante quatre pour cent quarante six pour cent a deux millions de sénégalais ñoo leen voté y a aussi deux millions de sénégalais ñoo leen contre nga yor pouvoir léegi bu ma leen yóbbee ci échantillon boobu pour ma wan sénégalais yi ni man ba léegi maa yor doole ji ba léegi sénégalais yi man lañ gëm. ba léegi sénégalais yi man la ñuy déglu ñu wan la ay Baye Fall yuy Baye Fall Baye Fall ñu wan la ay nit yu naan la dañuy gàmmu ji dañuy màgg c'est pour toucher les esprits waaw bi mu defee loolu xam nga lu mu sooraalewul woon mooy samedi bi ak dimanche ak week bi il aura toute la presse et toutes ces agences de communication qui vont parler de cette mobilisation pour résignation pour que ñu ne kii il est fort mais bi buggaan bi amee mhm. ils l'ont pris ma toog fii ma ne leen garde à vue day am de mhm. ne leen dina fa def samedi dina fa def dimanche parce que la presse de lundi du bëgg ku xëccoog moom mais bi affaire bi catastrophique lundi ci guddi gi vous avez vu Ousmane Sonko mu def conseil interministériel. Mhm. avec les ministres donc reconnaître que ni y' problème bam y' problème à Bakel. léegi il en a aussi reçu des sondage qui lui montrent que affaire yi dafa défavorable maintenant y' a une autre équipe. des sociétés civiles du projet qui sont en train de travailler pour le renvoi de l'élection tegal ma ma ñëw si ligne boobu parce que ñooñu ñu ngi dox loolu pour les deux jours non pour les deux jours nee na ministre bi demal fii deux milliards deux mille c'est deux jours ñu retenir Bougane à la prison ces deux jours ils vont parler de Bakel ils vont mettre les projecteurs sur Bakel ils vont mettre projecteurs ci coono Bakel bi pour un prétexte pour renvoyer les élections mercredi conseil des ministre si le ballon de sonde jàll na conseil des ministres ñu ne état catastrophe moo am. Hmm. élection mënul am. léegi looloo tax ñu retenir foofu Bougane entre temps bëgg nañu opposant bu mel ni Amadou Ba parce que lui il avait pris la place du chef de l'opposition radicale dañ koy téye foofu yóbbu ko bala le 29 ci diggante bi buñ toogee di wax am na ñuy ñu opposé wul sax yu nekk ci biir coalition sàmm sa kàddu commencé waxtaan ñooñu ñëpp bu ñu dajee dinañ ne waxtaan na amaat concertation na amaat ñu seetaat beneen date ñu ngi ci tànk pousse élection yi je fais cette alerte déggu leen ci benn nitu société ñu ngi ci tànk bi ñu ngi koy dox ñu ngi dem di waxtaan ak ay nit ci suuf parce que prétexte bi mooy Bakel. moom ah, nee na Kidira amul ndox leneen amul ndox non non. li am Bakel terewul Dakar Arena am. mais déggoo ma li ta waa kay. léegi nag la communication de Dakar Arena. ñu dem soirée dem s'il te plaît may ma ma jël kii dafa xaw a yàgg ci ci ligne bi muy porte parole bu république des valeurs bu Thierno Alassane Sall di Bamba Faye euh, Bamba ñu ngi lay nuyu moom itam dafa bëgg a euh, participer euh, ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan bi ñuy amal ñeel wàllub arrestation bu leader bu. gëm sa euh, bopp mais également bokk ci coalition euh, sàmm sa kàddu Bamba bu dee yaa ngi may dégg. Euh, salaamaaleykum. maaleykum très bien Samba Faye ñu ngi lay nuyu yow bu